Djibi Diol soxnam si Mamy doomam di Khadija rakkam bi ak sax jarbaatam ñoom ñépp àndandoo génn àdduna ci ab lakk bi nga xamante ni amoon na foofu foofule ca seen kër fare ca Green Valley Ranch nekk ca gox bu ñu duppee Denver foofu lépp ci États-Unis ñu nekk doomi sénégalais ñi nga xamante ni génn nañ àdduna ci boobu lépp lakk-lakk te ñuy naan sax jëfu nit la boobu lépp musiba mu ngi am àllarba yemoo ko juróomi fan ci weeru août atub foofu foofule ca nord est ci ville bu ñu duppee Colorado Dakaractu bu Tëngéej dem foofu lépp ca Sangalkam ngir ki nga xamante ne mooy Amadou Tidiane Beye moom sax mu ngi dëkkee ci gox bu ñu duppee Noflaay faxe foofu lépp ci commune bu Sangalkam moo jur ki nga xamante ne mooy Awa Bitey nekk itamit borom këru Kumba ñu nekk ñaar ñi nga xamante ne itamit dañoo faatu ci boobu lépp moom Amadou Tidiane Bitey bi mooy génnam bu njëkk ngir mu wax ci boobu lépp xew-xew ci bi lépp interview sax moom Amadou Bitey mu ngi ñuy wax kàddu yi nga xamante ne moom la ko soxna si mujjee dénk laata muy génn àdduna. waaw métti rek man parce que soxna si maa ngi wax ak moom barki démb ñu ngi géej ñu ngi ñu ngi chaque fois parce que heure yi dëkk heure yi du benn en général bu ma nekkee si minuit moom day fekk mu nekk si ay 17 heures waaw donc boo boo boo nekkee di waajal nelaw day fekk moom mu ngi si ay activité waaw. do meuna xaar ba yenn heure eh, yi waaw mais n'empêche dañ doon wax trois fois minimum par jour dañ koy déggante waaw suñ dernière déggante nag mu ngi woon si jàmm ak salaam waaw ñu waxtaan li ñu waxtaan mu tàggu moom ma tàggu ko ma dem tëdd moom mu dem liggéey quoi bon xam naa nag après la affaire bi am man yëguma ko si guddi gi ñu am foofu bu mu liggéey ba wàcc peut-être si guddi gi fofu la affaire fofu la affaire bi amé xewé quoi man bobu yewu na fi ni si suba gi dox commencé dox sama activité yëgu waw waaw ma jékki-jékki daal gis ben numéro inconnu appel bu mo woo fekk grand bi la euh, grand Aliou waw ci suñu frère man ak mom yépp dal mais mom mo bok ak sama jabar bab pap euh, euh papa mo bok ak mom bay mom moy taw famille bi aussi ah noonu daal la de noonu laa yëgee affaire yi bi ma ko waxee gëmuma ko bon il a fallu que ma ma am confirmation si pap si paa bi parce que paa bi mu ngi foofu di suñu papa ñun ñëpp di sama tonton man mi voilà quoi papam laa woo moom mënul sax wax mu jooy man tamit ma yuux ma jooy waaw maa fallu ba tey jii ma door ma door a pour mën a wax ak nit wala ma jël sama téléphone wax wala ma toog. waaw sama lépp daal paralysé woon na quoi parce que bon ni ko yëgee laa ko yëgee daal papa mui ngi foofu degan ngi déggante téléphone waaw bon ñoom moom ñëw na pour xool affaire nu mu demee police fekk na fa police police nee na ko il va falloir ñoom ñu def seen enquête parce que am na lu si laxasu bon man noonu laa man noonu si toll léegi enquête boobu mu ngi si loxoy police lépp loo xamante ne mun dina si am ñu ñaan yàlla yàlla def mu leer si dob si si bët ñun ñëpp ñun ñëpp ñu xam affaire yi mu demee waaw loolu daal waaye man mënu ma si prononcé wu parce que affaire yi fii la ma fekk maa ngi fii ni ngeen ko déggee noonu laa ko déggee affaire yi am na ku ko def nit moo ko def nit def ko man wax dëgg yàlla man noonu ni ngeen ko déggee rek laa ko déggee sama jabar moo si gaañu moom mu nekk kii ngeen di gis ni ci waaw kii mooy sama jabar moo tudd kumba jool waaw moom moo jur doom biñ naan awa bay kooku suñu doom la mooy suñu doom waaw keneen ki jibi la tudd moom mooy magu sama jabar waaw mu ngi tudd jibi jibril jool ak soxnaam soxnaam mu ngi tudd mami mami lañ ko doon wooye ak seen doom xarjata jool Je dal la affaire vraiment lancer appel à toutes les autorités et xamante ne quoi monsieur le président de la république et tout le gouvernement bi nga xamante ne membre boo xamante ne nga ci jàpp rek lépp ñun ñu jot ñu